mbokk yi sant leen gërëm leen ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM tey suñu émission gox bi fa yéene dalal ki nga xam ni moom moo di Cheikh Ndiaye nekk ñetteelu adjoint au maire bu Sicap commune bu Sicap Liberté sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. Euh, maa ngi leen di fay euh, Mbemba di leen nuyu yéen tamit di leen ziar di leen gërëm di leen sant ci dalal bi ngeen ma dalal. <laughs> alors euh, Cheikh Ndiaye bu ñu nee commune Sicap Liberté ci jamono si ginnaaw boo ne woon nit si commune Sicap Liberté laa dëkk sag la waaye euh, no démb ak tey commune bi am na ay changement de boo ñu doon wax changement lan moo waral li tax commune bi changé tey waa jërëjëf euh, naam sak la sak la woon waaye sak la ba tey mhm. sak la ba tey euh, wante même bu fekkee ne am na ay lu ci soppeeku mhm. soppeeku bi nag dafa ànd ak jamono mhm. ndax jamono day dox Euh, boo xoolee euh, ñun bi ñu nekk ndaw. Mhm. Euh, gën a tuuti. ak tey. Mhm. li dëkk ci commune bi population bi dafa yokk. waaw dafa yokk bu baax. Mhm. yokk bu baax boobu nag. àndul ak. investissement ya ca waroon dem. boo ma jox la benn exemple bu ndaw. boo xoolee assainissement commune Sicap. bi ko bi ñu koy tabax. 30 ans moo doon durée de vie bi. Mhm. réseau bi. Mhm. waaw Sicap tey quartier bi nga xamante ne moo fa gën a nda euh, bees. Mhm. bu dul Liberté 6 extension muy Liberté 6. 76 lañ ko tabax. am na 40 ans yu teg. xam nga kon kooku dégradation day am bu investissement amul. waa ci yeneen fànn tamit noonu. naka noonu ci école yi. ci ci tali yi ci euh, ak yeneen ak yeneen. loolu moo indil. tey jii ni nga am beneen gis-gis. bu wuteeg xarkam euh, xarkanam Sicap bawoon waaw Euh, ci loolu sax yokkute bi naam lu jaadu la waaye yéen ci euh, municipalité bi ci munici euh, ci équipe bi nga bokk. Mhm. yaa ñetteel adjoint bi mhm. ndax tey am na sikaab am na fu nga xam ne nag mën nga fa woon. Mhm. tey am na fu ngeen ko yóbbu tey bu buñ doon wax ni li nga xam ni moo di def ngeen fa ay jéego ci sikaab ci secteur. li jëm ci wàllu infrastructure ci dëkk bi lan la tey monsieur Ndiaye. waaw jërëjëf loolu tontu bi dina ma dina yomb loolu ndax boo xoolee ci wàllu infrastructure li njëkk mooy li nga xamante ne moo fa nekkoon lañ fa fekk ñun ñu fexe mu bañ a yàqu gën a bañ a gën a dégradé wu ñu dox ci ay jéego mooy euh, tey ji moo tax ñu jël benn équipe bu assainissement bu xamante ne am na trente jeunes ñiy bale di nettoyer di fomp loolu ñu ngi koy def pour que environnement bi ak cadre de vie bi mën a baax waaye yemuñu ci loolu dañu yokk infrastructure yi. Mhm. Euh, boo xoolee commune Sicap Liberté. Mhm. Euh, ay poste de santé ñun lañ fa fekkoon. waaye tey dañ fa def centre de santé. boo xamante ne boo wëree ndakaaru ba ndakaaru daj. Mm. du fa gis centre de santé. Mm-hmm. bu ko gën a jekk bu ko ah gën a taaw. mooy ban mooy centre de santé euh, mm-hmm. Mamadou Diop di Pape nekk Liberté 6 extension. waaw mm-hmm. donc loolu bokk na ci. bokk na ci ñu yokk offre scolaire bi. ndax Sicap Liberté. benn CM la amoon. mu CM David Diop. ñu yokk ci beneen CM. avec les accords euh, ak euh, ñu déggoo ci ak ministère de l' éducation. Liberté 6. ñu école primaire yi. Euh, école Liberté moo fa nekkoon. Euh, ak ñeneen ñi beneen bi nekk Sacré Cœur te waa doomu Sicap dafa dem mooy école Liberté 5. ñu ñëw fekk indi beneen école primaire fële ci Baraka. waaw xam kon kooku ñu ngi yokk. waaw ci yooyu nag naka noonu. boo ko duggee sax ci wàllu tali. Euh, boo demee Liberté 4. koñ yi waaw koñ yi. Liberté 4 ay tali yoo xamante ne toog nañu 40 ans kenn mosu leen réfectionné. tey boo duggee Liberté 4. doo daw ci benn tali ba yëg benn di dox koñ par koñ. Mhm. kor quartier par quartier. Mhm. incha allahu rabbi ba yàlla euh, mhm. may ñu ñu. Euh, yooyu noonu. ñu delloo wat ko seen place. mun a nag yokkaat yeneen. donc su ma la déggee rek. Euh, naam bu lépp yembul waaye def ngeen ay jéego ci li jëm ci wàllum commune bi ci wàllum infrastructure. bu baax. waaw alors tey bu nu déggee SICAP tey li nga xam ne moom moo jëm ci marché yi. yéen tey li nga xam ne moom moo jëm ci marché yi ndax tey koom bi mu leen indil yéen a ngi koy delloo ci askan wi li nga xam ne moom la askan wi euh, ñi nga xam ñoo nekk ci marché bi. Mhm. di daal di contribuer ndax li ni mel mi ngi dellu ci askan wi bu baax a baax. waaw foofu tamit dafay baax ma leeral ci mbir. Euh, ñaari marché lañ fekk si Cap Liberté. mooy ban ak ban. mooy bu Liberté 6. Mhm. mooy marché bu yàgg bi. Mhm. ak bu Liberté 6 extension. bu Liberté 6 extension. maanaam ñun toog nañ fa ay at réceptionné wuñ ko. lu tax parce que liggéey ba baaxul woon. maanaam boo fekkee nag dara baaxul. Mhm. liggéey bi baaxul courant amu fa woon. amuloon courant. Mhm. amul toilette. Mhm. amul ndox. amul lu bari. yow nga bëgg ko réceptionné di ci laaj nit ñi tax. du dëgg du yoon. moo tax ñu ne woon ñi fi nekk di xaarandi. duñ leen laaj dërëm. dañuy fexe ñun ba indi fi courant. indi fi ndox. jéem ko defar ba mu bu mu xaw a am tuuti ci norme yi. Eh, eh, loolu sax Senelec dimbali ñu ci bu baax. dimbali ñu ci bu baax ñu leen ci gërëm di leen ci sant. ba ñu mettre ko un peu aux normes. ci lañ commencé jël taxe loolu. Euh, ci trois ans yi ci ginnaaw rek la am. Liberté 6 bu njëkk ba. marché bu ndaw la. ok et il est important que ñuy wax gis nga infrastructure marchande yi nekk commune Sicap Liberté. de cinq pour cent ci budget. maanaam doo leen ci gis amul lu ngeen ci mën a séntu lu am solo daal. ma ni contribuer wul sax à hauteur de cinq pour cent ci budget commune Sicap Liberté. ok waaw te bu saa bu xët-xët amee rek yéen ak yi. xaalis lañuy la ñuy dégg. waaw xaalis lañuy dégg parce que nag dafay am foo xamante ne yow mi fi nekk. Uh-huh. il faut que di fi liggéey. Uh-huh. di fi am di fi gañ a xaalis. Uh-huh. il faut nga as tuut. nga koy delloo waat ci gox bi. Ah. souvent boo déggee xët-xët am suñu digganteeg ñoom rek. lool rek lay doon. loolu rek lay doon. waaw léegi suñu jógee foofu noonu ci école bi yaa ngi ko doon junju sànq ci école bi euh, def ngeen ci ay infrastructure di fàttali itam mbokk yi ñoom mën nañ dugg joxe seen xalaat ci 88 628. 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 mën nañ dugg joxe seen xalaat ci émission bi wala sax ñu participer ci li nga xam ne moom moo jëm ci émission buñ nee développement nag yombul ndax commune bi yéen yéen a ngi xaar da ngeen di xaar nguur jox leen wala da ngeen di demal seen bopp. waaw ñun xaaruñu nguur nguur jox na. boo ko seetloo. bu fekkee ne gis nga amoon nga chance su gis les différents documents yi nga xamante ne ci la ñuy tënk budget wu commune Sicap ñun dañu jëlee suñu budget du simple au double. naam am na lu ñu ci état jox. waaye la ci ëpp ñun ñoo ko uti indi ko. ok seen i partenaire daal. non ci suñu ci ci ci ci. seen daal waaw suñuy pexe hmm. administration bi la ñu defaraat. Hmm. teg fa ñu am xam-xam. Hmm. mën ko liggéey nekk ay ndaw di doomi Sicap ñu defal leen canevas mhm. ak manuel de procédure boo xamante ne mooy mhm. permettre mhm. une euh, ñu optimiser suñuy ressources donc loolu foofu ñun foofu la ñu njëkk basé wu parce que tamit da xool dem sa utiliser say possibilités la nga am ak la nga mën ngay doog a jéggaani leneen ñun kon effort yooyu la ñu njëkk def effort yooyu la ñu njëkk def moo tax léegi nag naam c'est vrai que doyul c'est très insuffisant moo tax leneen li. ci mhm. état lay jóge am na luy jóge ci état. as ba du yéex du gàllankoor seen liggéey. waa léeg-léeg mu yéex. Mhm. mais am naa yaakaar ne ak programme bu bees bi état du Sénégal def ak. muy PACASEN muy PACASEN. Mhm. Euh, léegi procédure yi quand même. Euh, dinañ am naa yaakaar ne dinañ xaw a gën a gaaw. am naa ci yaakaar. ndax yéen seen gox bi am na ay entreprise yoo xam ne ñoom ñu ngi. contribuer ci li nga xam ne moom moo jëm ci RSE bi ngir mun leen jàppale ci li nga xam ne moom moo jëm ci commune bi. ba bis ni ki tey de amu ci benn entreprise boo xamante ne. Mhm. Euh, mi ngi ci gox bi boo xamante ne mi ngi def euh, am politique RSE. lu tax envers la commune. waa gox bi dafa yaatu. mais benn entreprise bu mag moo fa am te dafa nekk en phase en faillite. Mhm. Euh, bugguma ko citer. Oh, c'est waaw donc à part ça. Mhm. ay ay ay yu ndaw ñoo fa nekk. Mhm. yoo xamante ne vraiment. boo ko xoolee sax a pousse. waaw à la sax léeg-léeg ñoom dañuy ñëw pour yow nga pousse leen. Mhm. donc loolu mooy cat li. ok léegi bu ñu bu ñu jógee ci loolu commune bi naam euh, ngeen ne seen budget nga ne seen budget yeggul ci ay milliards ndax askan wi ñu ngi sentir ni politique bi nga xam ne yéen a ngi koy jëmal ci biir commune bi. ah xaw ma euh, am naa yaakaar. en tout cas ñi nga xamante ne am nañu soxla. Mhm. ba ñëw si ci mairie bi. Mhm. ak koo mën a doon. Mhm. Euh, ñi ngi ci ut saafara. sentir ko nag. Euh, am naa yaakaar ne élèves yi ñu ngi koy étudiants yi. Mhm. sentir nañ ko. Mhm. ndax tey boo xoolee ci ñetti at yi euh, ñeenti at yii. Mhm. Euh, li ñu ci am. ci ay jël nañ ci lu mu néew néew néew. junni doomi Sicap. fayal leen ay bourses d'études supérieures. pour ñu jàng pour que ñu relever seen niveau. pour avoir de meilleures chances sur le marché de l'emploi. donc loolu ñu ngi koy def. ah naka noonu. centre de santé boobu ma lay wax. ak ñu ngi fay ñu ngi dimbali askan wi. appui. ci ñi mën a faju mhm. ndax da ngay ñëw mairie mhm. amoo loo fajoo mhm. ñu defal la prise en charge nga dem def sa analyse nga dem def sa contrôle nga dem def say rajo nga dem def ak yeneen ak yeneen su loolu mairie bi jël ko ci noddam loolu tamit ñu ngi koy def ci askan wi li jël li war a jëm ci liggéey woowu noonu ndax askan wi ñoom buñ ci feebaree dinañ ci faju ci wàllum li nga xam ne moom moo jëm ci semi bi te itam li nga xam ne moom moo jëm ci tali bi eh, tali yéen yéen a ko réfectionné wala état moom moo leen ci jàppale Euh, réfectionner tali ah ñun commune Sicap xajul ci suñu budget ok donc lii ville de Dakar. moo leen jàppale moo ñu jàppale lii Ageroute moo ñu jàppale. waaw tali bu ñu réfectionné Sicap rek. Mhm. am na ci loo xamante bi. Mhm. Mhm. Euh, ma la xaju ci. Euh, léegi maa bi. bien sûr euh, dafa bokk naam dafa nekk infrastructure bu bees. bu nekk ci commune bi. bu njëkk ba avant acte trois ville de Dakar daan fay salarié am. waaye tey jii nii. diggante salaire charge su centre de santé boobu. salaire yi courant beeg ndox mi. Euh, daan dina jël un tiers suñu budget mhm. maanaam ci li ñu exécuté mhm. ci année bi mhm. un tiers centre de santé boobu dina ko jël donc automatiquement dafay gàllankoor yeneen parti yoo xamante ne foofu nga waroon mën a investir te loolu lu mënta ñàkk la waaw donc ndaw yi ciy liggéey nag ñoom ndax bu nu feebaree dinañ faju ba wér euh, ndaw ñi ci wàllum CMU bi ñoom boole nañ leen ci wàllum CMU bi ñiy liggéey ci gox bi Euh, waa CMU bi nag euh, euh, personnel bi. Mhm. lañ fa dugaloon déjà personnel bi dëkk ci di nekk ci mairie bi. Mhm. ak ñi nga xamante ne ñëw nañ si suñu parce que dañuy tijji benn mutuelle. ok installé ko bureau ci mhm. biir mairie bi. pour que képp ku bëgg inscrire mhm. nga ñëw foofu ci CMU bi mhm. nga ñëw inscrire mhm. y a des adhérents yu fa nekk parce que tout temps maa ngi leen gis ñi di ko génn aw ma statistiques yi nag am naa yaakaar nañ am na ñu ciy profité waaw monsieur Ndiaye waaw lan moo tax ni yéen ngeen euh, seen mairie bi naam am na budget boo xam ne daf ko jagleel ñuy defaraat rond point yi ngeen xaar ba ab benn mouvement bu tudd euh, sikap sunu naat sunu naat xam nga nañ koy waxee mhm. ab mouvement mhm. ñëw di commencé di defar li nga xam ne moom moo jëm ci rond yi te yéen amoon ngeen budget boo xam ne dafa war a defar rond point yi loo ngeen xaar ba ñëw njëkk leen si ngeen soo ko jug waa léegi loolu dafa mun naa ci leeral benn mbir waa bisimilah euh, amoon nañu ko uh-huh. maanaam xam nga am nga budget uh-huh. budget da ngay tënk uh-huh. ay recette ak ay dépense du xaalis boo téye. Mhm. da nga da nga naan fas naa yéene. defar lii am naa yaakaar ne dinaa jot nangam. Mhm. ci at mhm. su ma jotee nangam bi lii laa ciy def. rond point et place yooyu. deux mille depuis trois ans. mi ngi ci suñu budget ñu ngi ko ciy inscrire. waaye koom gi yegsiwul ba ñu war ko mën a exécuter. daaw. la ñu euh, bi mujj jàll. bi muy jàll. dajeeg fin d'année. ak procédure DCMP yi. bien sûr xam des procédures très ah, donc ñu topp ko. Mhm. ba ren. Mhm. Euh, léegi lépp ci mhm. deux mille vingt bii. semaine passée. dossier euh, dossier bi jóge na DCMP. ñëw na euh, ñëw na. parce que immatriculé nañ ko. donc ñu ngi koy envoyé chez le payeur. pour que ñu mën a entamer la réflexion. waaye. danaa leeral ne. Euh, ndaw jiituñu ci loolu. du gulet. ndax boo demee rond Espagne. nga fekk fa ay ñoo xamante ne y' a un an. Mhm. dañu ànd ak ñun. Mhm. ñu dimbali leen ñoom ñu indi seen effort humain. Mhm. ak seen tuut ñun ñu indi suñu tuut ñoom ñu defar ko. rond point boobu tey bokk na ci rond point yi dàq Dakar. da boo amee jot nga dem visiter ko. Euh, nga dem Liberté 5. nga fekk fa euh, euh, Cap Skirring mouvement bu fa nekk defar allée bi ko. nga dem Liberté 4. fekk fa. mouvement bu tudd ànd déggoo defar liberté 4 mhm. chaque dimanche ñuy nettoyer mhm. di defar liberté 4 ba mu ne boy c'est-à-dire que ñun lool la ñuy xaar ci askan wi kon kay mouvement boobu bu defee loolu mhm. def na la ko war nous c'est ce qu'on attend et on encourage ces actions là est-ce que ñoom ba ñu defee loolu woo ngeen leen yéen mairie bi ngeen mën leen ñaax ci encourager leen te ñoom lu leen war rek lan def ci li ndax woo ngeen leen encourager leen ñaax leen ci li ni mel waaw euh, euh, man bu ma defee lu ma war ma ci. comme li ma la wax ñu bëri ñu ngi koy def ci commune bi. Mhm. te xa tàggoowuñu te tàggoowuñu. am na naam ñu ñuy yëgal. Mhm. ñu ànd ceeg ñoom. Mhm. waaye man su ma jàppee ne lii may def. mën naa ko def. sama warugar la sama warugar la. te du ma ci woo commune bi. du ma ko ci xaar. c'est-à-dire que loolu man dama koy encourager laa la bëgg wax. maanaam c'est l'effort citoyen. envers la société. Euh, commune bi. naam euh, li nga xam ne moom moo jëm ci seen euh, yéen a ngi doon jooy sax fan yële seen maire bi dégg naa ko ci conférence de presse mu ne Demba Diop dal leen ko waroon jox tëj bi mu leen tëj daa mel ni gàllankoor la leen de même bu ngeen ko waxul. waaw xam nga. Demba Diop ba itam jël ko mm. jox ko ministère. Euh, ci li nga xam ne moom moo jëm ci recettes yi nga xam ne daa ngeen ko am hmm. tey bu ñëwoon ci commune yàgg ngeen ko sàkku recettes yi nga xam ne dañ koy am ci Demba Diop ngeen ngeen jël ko hmm. approprié woo ko hmm. mais loolu dafa mel ni def leen gàllankoor de waaw bon bokk na ci li ñu gàllankoor bokk na ci parce que li ñu gàllankoor bëri na mais Demba Diop man dama jàppoon ne euh, commune Sicap bi ñu ko tabax bon dégg naa ne jox nañ ko fédération. moo ko war a tabax a mhm. tabax. mais ni ko fédération di tabaxee. Mhm. fédération ay partenaires yu tabax ko. Mhm. ñun mairie bu ñu ko joxoon ñu wut ay partenaires tabax ko. mu muy dellu si waat. ci commune bi ci commune bi. waaye tey jii nii. jox nañ ko fédération. et toujours euh, ni mu daan demee rek laa ragal ni mu demee noonu. tey jii nii commune bi muy impacté. population yi nga xamante ne bu fa làmb amaan ñoom dañuy souffrir. bu fa football amee lépp casse yu njëkk foofu lay njëkk am. ñoom ñoo ciy souffrir. mais mënoon na créer bi. ji ak yenn xeetu liggéey yoo xamante ne mhm. ci commune bi yokk ay infrastructure commune bi mhm. donc cest à man jàpp naa ne mhm. euh, bu ñu bu ñu état déglu woon mhm. ñun la koy jox jox ñu ko ci ay conditions yu leer bu ñu mën mënee remplir conditions yi baax na bu ñu ko mënul remplir ñu jox ko fédération wala keneen est-ce que yéen tamit mairie bi du ngeen jéem a def xool ay jéego naka ngeen mën a kol boolee seen doole yéen ak fédération ngeen toog waxtaan comme que day tabax yéen it ngeen ñëw jàpp ci bu ngeen ci jàppee xëy na retour bi ñàkkul ni yéen itam di ngeen ci mën a am dara xel xel xel la dinaa ci échanger ak monsieur maire. Uh-huh. Euh, moom nga xamante ni moom da jooy rek. ah milieu milieu sportif waaw uh-huh. waaw foofu foofu dafa yàgg jur problème. Uh-huh. moom ci milieu bi la nekk. am naa yaakaar ne buñ ci bu ci waxtaanee ak son ami Augustin. ak euh, le ministre Matar Ba du ak xëy na mu am ay canevas. yu ñu mën a exploiter. commune bi yéen seen dëkk bi ko Sicap dafa bëri ay ndombo tànk. waaw te buñ ne développement naam nit ki warul xaar. Mm-hmm. ñëw naan damay def si commune bi jàppale. Mm-hmm. waaye ñun dañu seetlu ni bëri na ay nomba tànk waaye li nga xam ne moom moo jëm ci def si commune bi te yàlla tax. Mm-hmm. bariw fa de. ah waaw du ma ne du ma ne bari na fa. Ah. parce que amaana xëy na du ñàkk ne ñoom ku ci nekk ñu yor ndombo tànk yi ci quartier yi ñuy dëkk ak proximité bi. Ah. am na lu ñu fay def te ñun duñ ko yëg. Ah. Euh, mais de manière générale. Uh-huh. Euh, yëguma yi sentiruma ko daal. lu bloqué si li ko bloqué nag. Uh-huh. Euh, loolu dëgg dëgg bugguma la ci buggu munuma la ci tontu. Uh-huh. parce que da ngay dox ci loo xam. waaw loolu dëgg dëgg il aurait été important peut-être. boo interroger ñu yor ndombo tànk yooyu. xëy na ñoom dinañ la wax lan moo tax defuñu fay action d'envergure. cleaning day njiitu réew mi woote na ko yéen dafa fekkoon ne yéen jiitu ngeen ko bu yàgg wala. waa cleaning day xam nga ñun. yàgg nañ ko jiitu moo tax xam nga dégg man la. ñun lu lu jiitu clean def nañu ak suñu programme mu euh, suñu équipe assenissement mm-hmm. une semaine en quartier. Mm-hmm. équipe bi moo yor matériel am di wër quartier chaque semaine moo def benn quartier. ok avant boobu. ñun mm-hmm. ñoo daan désensabler. avant boobu mais nag dafay en dafay dellu siwaat par exemple dañu génn ci nawet bi. suuf si wàccaat. ak yu bëri mais boo defee tuuru si kap li nga fay dindi ci suuf. sable. à Liberté 6. bariwul. Ah. un deux trois quatre cinq. Mm-hmm. bariwul suuf. Mm-hmm. seen problème kay leneen la. Mm-hmm. Euh, li ñuy wax naan ñuy euh, pérenniser. entretien wu environnement bi. loolu daal moo ci xaw a xaw a xaw a gàllankoor mais am nañu équipe boo xam ne dañu def tour ba pare ñu jël équipe boobu wax conseil de quartier yi. saa bu ngeen leen soxla du lundi au vendredi woo leen ñu ñëw nettoyer leen. te ñu ngi koy def ñi leen di woo yëpp ñu ngi koy def ak ñoom. te askan wi di ñu ngi génn. ah ñu ngi génn ba askan wi seen génn bariwul loolu nag. Ah. waaw taxu ko bari loolu mais am na ci ñu am volonté. di génn di ànd ak gaañ di liggéey. léegi nan ngeen war a def léegi ba ñoom euh, li ni mel mu dugg seen bopp ni ñoom bu ñu leen ko defaree ñoom ñoo tax. waa xam nga loolu moom du Sicap rek loolu Sénégal yëpp la. waaw <laughs> Sénégal yëpp la. kooku Sénégal yëpp la. waaye amaana tey xam nga. si Sicap hmm. mën nañ ne rëy na rëyul. waaw rëy waaye am na yenn mécanisme yi yenn fànn yi ngeen war a mën a jaar rek atteindre masse bi. Eh, hmm. ndax yéen a ngi def euh, sensibilisation bi. ni mel sensibilisation boobu boo gisee euh, ñi ngi koy def mun naa la ñu ngi koy def moo taxul ñu mettre en place les structures yu tudd conseil de quartier. Hmm. conseil de quartier bi dafa nekk organe boo xamante ne parce que mhm. boobu waa Sicap doon jooytu ne mhm. ñoom daal euh, ak mairie bi dafa am distance mhm. ñu euh, le maire sant seen añ je le salue au passage mettre ak équipe bi ñàkkul ni mi ngi déglu émission bi waaw xëy mu ngi koy déglu ak équipe bi ñu mettre en place les conseils de quartier ñu ne conseil de quartier kan moo ciy bokk ñu ne délégué de quartier ci conseil bokk ASC ci la bokk. Mhm. Euh, euh, euh, mouvement de jeunes ci la bokk. Mhm. mouvement de femmes ci la bokk. Mhm. personne ressource ci la bokk. conseillers municipaux yi ñëpp. nañ ñëw dajaloo ci conseil de quartier bi. loolu lan lañ ci jublu woon. lépp loo xamante ne mairie am na ko comme programme. daf koy wasaare via ce canal là mu jëm ci quartier bi. lépp luy mébétu quartier bi. dañ koy dañ koy indi ci conseil de quartier bi. xëy na sax ci biir conseil bi am ko ko mën a régler. balaa mu egsi mairie. Mm-hmm. suñ ko mënul régler ñu ñëw indi ko mairie mairie ut ci pexe. Mm-hmm. bu ñu ci amul pexe. Mm-hmm. wala bokkul ci suñu compétence ñun ñu ànd ak conseil bi dem ci organu état bi ñi nga xamante ne kii léegi nag euh, du ma la nëbb la mayonnaise a du mal à prendre mhm. mais defe naa avec le temps mhm. bu ñu continuer di ko pérenniser mhm. di ci gën a sensibiliser parce que wax nga wax ji sensibilisation nag moo metti jamono ji Sénégal waaw dëkk bi waaw waaw dafay am waaye buñ ne euh, li nga xam ne moom moo di SICAP xëy na ndaw yeeg mag ñi ñu ngi fa waaye ci famille la ñuy dooree rek ñoom ndax ci wàllum financement comme GIE yi mm-hmm. naam mm-hmm. GIE yi bëri na foofu mm-hmm. li nga xam ne moom moo jëm di financer leen ngir ñu mën a dimbali seen bopp mairie bi am na ci ay projet n'est-ce pas lan la yan la waaw en fait am na projet bu ñu defoon quand même euh, ren defaatuñ ko euh, lu tax defoo leen ko waaw kooku dama ci yegsi parce que dañ ko dañ dañu tenter une première expérience jël caution jox benn euh, organe de crédit ne ñun ñooy cautionné léegi femmes yi di def groupement yi di ñëw mu leen di financé. ñi fay. mu nekk revolving. caution boobu des fa. ok waaye dafa am gàllankoor. parce que ñu bëri fayuñu woon. léegi <laughs> dañu jàpp ne daal <laughs> may la quoi. <laughs> gars yi dañuy jàpp ne may la. Mhm. Mhm. bon mu am problème yu bëri ba ñu arrêté woon ko. Mhm. ñi ngi utaat léegi yeneen pexe. pour xool actuellement léegi ñi ngi xool beneen axe bu ñu leen di dimbalee. lu jëm ci formation yi. avec le ministère de l'artisanat. am nañ ay formation yu bëri. Mhm. yoo xamante ne am nañ ko. Mhm. ñu koy wasaare. Mhm. pour que ñoom ñu jaar via le canal de la mairie. ñu déposer ñu dimbali leen pour que ñu mën a am xam-xam. ci maanaam fànn yu bëri. mën a utiliser xam-xam boobu. laa di ko mettre en œuvre euh, pour seen njariñ. ñoom dañ koy soxla de ndax ñoom seen euh, seen association yi ñuy yor foofu yéen yéen a ngi leen di jàppale bu baax a baax ndax ñoom da boo leen nee jug leen ngeen yëngatu rek ñu ne ñoon gisuñu buntu mairie mairie jàppale wu noonu ndax yéen a ngi leen yenn action yi pour ñu mën a mënal seen bopp waaw bon je ne dirais pas que jàppale bi xaw ma ban dans dans quel sens. xam nga mën nga mën nga euh, tijji tey. Mhm. li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum euh, jàppale leen ci yenn formation yi ne leen nag ah tey euh, xam-xam baa ngi fi compétence mhm. baa ngi fi jox nañ leen lépp la ca war. Mhm. xëy na mairie bi tey mu am yenn projet yoo xam ne. comme li nga xam ne moo di mbay mi. ak yeneen i céréales yi ñuy def ubbi leen boutique. mu leen ñu mën a dugg ci projet yooyu comme ça bu weer jote te naam mairie bi dina fay waaye en contrepartie lay doon ndax hmm. yéen a yéen projet yooyu yéen a ngi koy xalaat bu baax a baax. waaw waaw loolu laal doon wax léegi. Hmm. moo taxoon ñoo tax ñu dem parce que ñun dafa am benn cabinet bu ñu àndal. ok dañ ko ne. Hmm. lépp loo xamante ne ressource. bu ONG bu fi nekk senegal la. ok wala état. projet programme bu jëm ci jeunes yi ak ci femmes yi demal nga utal ñu ko. nga indil ñu ko. ut procédure yi. Mhm. indil ñu ko. Mhm. ut lépp ñëw indil ñu ko. Mhm. bu ko defee waa SICAP bu ñu soxla di wëri. loolu information yooyu la jël. procédure yooyu lañ teg. loolu mooy eh, pour exemple. bi bi bi ñu créé DER. Eh, cabinet boobu. moo ñëw. def ay bureau mairie. di recevoir jeunes yi di leen defaral seen i projet yéen DER commune bi ñaata la ci am. Euh, je ne saurais vous dire parce que ba léegi jotaguma benn document officiel. Mhm. waaw kon bu ma ci ñemee ah, avancé waaw mhm. donc ñëw monteel mhm. euh, projet yi. monteel leen ko. gratuitement ñu mën ko dem déposer ci DER. noonu lañ koy defee pour groupe de femmes yi nga xamante ne. dañu am ay projet pour formation. dañu am projet pour euh, uti ay financement donc laa la même chose que ndaw ñi itam ñi ngi bénéficier wu ci seen i accompagnement ci wàllum xëy mi tout à fait tout à mhm. fait tout à fait ok léegi bu nu euh, jógee fa dinañ waxtaan ci li nga xam ni nag moom moo jëm ci euh, mais euh, ministère bi mhm. microfinance su ma juumul ak soli économie solidaire mhm. seen diwaan la dëkk de tout à fait ah, amaana naam du ñooñu rek la war a jàppale de mais ndey est-ce que tey demoon ngeen gis ko mairie bi gis na ko ngir xool naka lañ mën a accompagner li ni mel waaw euh, maa ngi koy nuyu moom tamit euh, madame le ministre Zahra Thiam. Mm-hmm. Euh, di ko sargal en fait moom dafa yor ministère. Mm-hmm. ministère nag boo ko déggee Sénégal yëpp la wax. bien gis naa ci télé yi ci mm-hmm. ci média yi. ne mi ngi def ay tournée tournée yooyu nag xam naa dafa yegg seegul Sicap ndax xam naa nag ndey ji seex lay mën a doon <laughs> waaw ndey ji parce que bu ko jëlee féetale ko Sicap ñu ne la mu am yëpp jox na ko waa Sicap euh, parce que mhm. déggoon naa leen Pikine wala Géejawaay ñu ngi woon démb Tëngéej ñu ngi woon mhm. doomu Sénégal yëpp di profité woo ci financement yooyu mhm. waa Sicap dinañ ci profité dañuy wax tamit euh, Liberté 5 waaw xam nga dafa boole Castor ax yéen Sicap mhm. mhm. tey ñu bari dañ naan xawma da ngeen di jot recette wala doo ngeen jot recette mhm. ndax loolu nekkul gàllankoor ci yéen ax ci ñoom ba itam naka nañ def ban arrivé loolu ci comme li nga xam ne moo jëm ci terminus bi xam nga foofu ab bayal bu yaatu la euh, commune bi niñ ko délimité la wala yéen xamuleen fu mu yem ak fu mu yem lan mooy problème bi waa xam nga liberté 5 <coughs> da nga naan liberté liberté 5 B la waaw boobu moo am problème mais ñun commune Sicap bi ñu toogee ba xalaat xool découpage bi dañ ne ñun lii Sicap la war a bokk liberté ñun dañu dem dañu bind ANAT agence nationale de l' aménagement du territoire. bien sûr ne ko dañoo bëgg nga ñëw délimiter ñu suñu commune. def na ko mu def ko en 2017. nañu liberté cinq b maanaam terminus ak. jël tali Derklé bi génn ji total bi 6. li yëpp seen commune la bokk. jox ñu carte. jox ñu euh, rapport. Mhm. ñu jël rapport boobu. Mhm. jox ko sous préfet. Mhm. jox ko préfet de Dakar. jox ko euh, euh, euh, nu ñuy waxati maire u Dieuppeul Derklé. le Cheikh Gueye mhm. ah bi ñu demee toog ab diir. ñu topp ci préfet waxul préfet waxul ñu topp ci di ci topp ba préfet de Dakar bi changé beneen préfet ñëw. ñu relancer ko. ba mu bind ñu. nañu effectivement léegi vraiment lii ci seen commune la bokk ñun ñu ngi courrier bi. Ah, ñu déployé suñu service pour dem. Mhm. le maire de Dieuppeul contesté. Mhm. a ah, bi mu contesté préfet arrêté waat ñu. dajale ñu ñu tase préfecture. Mhm. mairie Dieuppeul mairie Sicap les services techniques ñëpp toog. ñu ne léegi dañuy àndaat. ñu defaat délimitation bi. at ci yàlla. defuñu ci dara. Hmm. kon fi mu nii ba léegi. Liberté 5B. mi ngi ci giron commune Dieuppeul Derklé. bu baax. ba pare fayeekuwuñ fa benn dërëm waaw Sicap Liberté fayeekuwu fa benn dërëm dama bëgg mu leer mhm. ba léegi préfet ci giron wu mhm. commune Dieuppeul Derklé la ko bàyyi mhm. malgré le rapport de l'ANAT okay. voilà parce que benn jour dama fu mu sa dem euh, di laajte nit ñi reportage. ñi naan ma ñun xamuñu jëppal la. xamuñu castor la. te des fois dafay am problème ñoom bu ñu bëggee ay papier duñu xam nu ñuy def. ñu jéem a jël mbokk moom si ligne bi salaamaaleykum. sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la siyaar bu baax tur bi ak foo ñuy woowee. ñu ngi lay ziar. Mhm. ci émission bi. acca bisimilah. allo. ñu ngi lay dégg bu baax. waaw man euh, dama bëggoon a participer ci émission bi. Mhm. Euh, Bira mhm. euh, maa ngi dëkk Sicap Liberté. ci commune bi. doon dëggal rek. lii si troisième adjoint au maire monsieur Cheikh Ndiaye wax mm-hmm. ndax yaakaar naa ne fi mu nekk nii ci seen waxtaan bi mm-hmm. suñu defoon bilan wu émission bi mm-hmm. je crois que àgg ngeen kabu soixante dix soixante quinze pour cent ndax li tënk commune bi te décentralisation bi jox lañ ko territorialisation intégrale bi yow fekk ci ko defe naa ne volet d'activité bu ne mhm. touché ngeen ko fu mu nekk nii mhm. te loolu yëpp am na saafara yoo xam ne naam mhm. budget bi faible na participation état bi moo koy dëggali faible na tamit ñuy ñaan ñu yokk ko wax na paquet seen bi loolu yëpp am na ay projet yoo xam ne maire bi naal na ko ci fu ci ne ci secteur d'activité yi teg ko pour PACASEN mun cee dugal loxoom donc état bi. Mhm. Euh, laal nga boole yëpp. Mhm. santé bi. Mhm. éducation. loolu mu wax yëpp ñun dañ koy dëggal ndax man. fii mu terminé sànq ci conseil de quartier yi. man bokk naa ci ci structure yooyu. donc lu may dund la. c'est vrai que. gestion de proximité rek. moo tax a jóg conseil de quartier yooyu. kon kooku defe naa ne c'est une vision participative. Mhm. soo ko xoolee sax. Mhm. ni muy développé nga mhm. xam ne kii. li muy wax daf ci teg loxoom. lu mu maîtriser la. parce que ci lay yeewu ci lay xëy ci lay gont. volet culture bi xam naa ne dina ci ñëw. yàggul def nañ ci plateau culturel boo xam ne def regroupé l' ensemble des artistes qui sont dans la commune. et en dehors de la commune. pour rek relever mhm. la culture dans la commune mhm. te loolu defe naa ne euh, réussite bi mu am mhm. population yaa ngi jonkan d'ailleurs noté nañ ne chaque année à la date dañ koy répété et sport bi bàyyiwu ko environnement bi li mu la ci wax noonu loolu moo nekk loolu moo nekk trente éléments yi chaque semaine am na ci benn liberté bu ñu jëm te SICAP soo ko xoolee. Mhm. ay liberté ko composé. Mhm. kon daal man li ma yaakaar. Mhm. mooy euh, nañ leen gën a jàppale. gën a am yaakaar ci ñoom. moom moomu di troisième adjoint bi. defe naa ne moom SICAP sax daf koy plébiscité. dafay plébiscité. taxawaayam. kon ñun du ñu def lu dul di ko ñaanal yàlla. Euh, yi fi mu bëgg a jëmale Sicap mhm. yàlla eggal ko fa mhm. barki yent bi mhm. loolu sax en dehors même des conseils de quartier parce que toujours dans le souci de mieux se rapprocher des populations on a mis en place des des structures sans salle encore des des cafés donc c' est des cadres yoo xam ne dafay regrouper davantage les jeunes parce que soo leen amulee ci cadre bi di nga leen mën a ci bële cadre rien que pour relever le plateau donc des euh, d'Escale. Mm-hmm. en tout cas la mu wax ci marché marché wu même bu bu Liberté Six extension. Mm-hmm. un projet. muy mm-hmm. génn de terre. mais kooku c'est c'est un centre commercial. rëcc na xëy na lu mu bëggoon wax yëpp tënk na ko te yow dellu nga ci lu bari mais yenn yi nga toog ñu lay seedeel li nga xam ne yéen a koy def qu'est-ce que ça fait la lay def tey. waa sa fait un beau mon dafa daf lay daf lay daf lay ñaax la. Mhm. parce que man euh, seede yooyu da man pour man ay sonj la. Mhm. pour que euh, lu ma doon góor góor lu ma yokk ko. Mhm. Euh, lu ma doon def ma gën ci am doole ma gën ci am courage. parce que aussi di def léeg-léeg te euh, mhm. duñ la ñaax mhm. duñ la soññ mhm. xam nga waaw góor day tax nga gën a day dafay galvaniser galvaniser euh, doomu aadama donc euh, ma leen di sant di leen gërëm ci témoignage yooyu est-ce que kon tey jotul commune Sicap Liberté yokk koomam ndaam tey li mu def ba fii askan wi ñu ngi koy sentir tey ñu ngi dem ci année deux mille monsieur Ndiaye lan mooy projet gu commune bi naam bëri na mais lan mooy projet wu commune bi tey ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu suqali gox bi. waaw euh, projet phare yi ñu am ci deux mille vingt bi. Mhm. sànq yaa ngi koy wax mooy euh, place publique yi nga xamante ne moo nekk si Sicap. Mhm. yëpp ngeen defaraat. ñëpp ñu restauré waat ko. Mhm. baadu élection moo tax di waaj a jot moo tax ngeen koy def. déet bu doon élection boobu bu la jëmee élection te amoo xaalis noo koy defee <laughs> nee naa la ça fait trois ans. sunu débat d' orientation ci ñu jël mbokk moom salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar tur bi ak foo ñuy wooyee. allo rëcc na projet phare yi rek. waaw donc mhm. boobu bokk na ci. Mhm. Euh, euh, euh, terrain de football yi. Mhm. bëgg nañ ko restaurer waat ñoom itam. les routes. suñu defarul yëpp itam. au moins soixante dix pour cent yi des. ñu defaraat ko. donc yooyu bokk na ci projet phare commune Sicap euh, créer ay place yu amul woon parce que am na place yu ñu nangu ci euh, ñu ko doon occupant euh, yenn occupation yi moom la ñu bëgg indiwaat ñu jël mbokk moom salaamaaleykum ci xëy na moom dafa jàppandi dëgg mhm. waaw donc mhm. yooyu bokk na ci mhm. projet phare yi nga xamante ne bëgg nañ ko mettre en œuvre ci est-ce am na am na am na yéen seen commune amul xaj ak seen amul fii la maire bi dëkk amul fii yéen yëpp ngeen boole. maanaam. war a defar fenn ne ah fii de bastion benn euh, opposition la wala genre wala yéen xoolu leen lool maanaam kooku ñun ñun maanaam duñ duñ ko nelawaale duñ ko yeewuwaale duñ ko gént. Mhm. ñun benn lañu ñun mhm. benn lañu. salaamaaleykum. alo alo sëñ bi. asalaamaaleykum. ñu ngi lay ziar tur bi. ak fa ñu woowe man maa ngi tudd Souleymane Fall. Souleymane Fall. maa ngi dëkk ci kaw Liberté 4. Uh-huh. Souleymane ñu bisimilah. Ah, maa ngi lay nuyu bu baax. Uh-huh, di la fay. di nuyu monsieur le uh-huh. di déglu religieusement émission parce que acteur la. en tant que population. te lépp lu xew sama koñ. maanaam sama cité dafa ma solo. di rafetlu également débat bi. Hmm. parce que campagne am ko macha allah. jërëjëf. nga xamante ne effectivement noonu la. Hmm. commune nag dafa nekk benn euh, état la décentralisé. Hmm. mu am ay compétences yu ñu ko transféré. ci loolu monsieur le maire par rapport ak question yu ñu ko ci junj. macha allah wax na ci lu am solo. man nag ki ma bëgg a mooy au de la sécurité. parce tey. qu'on le veuille ou pas, des mhm. réels problèmes de sécurité existent au niveau de la CICAP. Mhm. mu bëggoon xam ne ñoom. Mhm. une question que je peux am monsieur le maire. naka la ñuy linkee ak aujourd'hui le commissariat de police de Dieuppeul. parce que problème boobu problème boobu solo la. boobu mooy sama question beneen bi une petite contribution la. di xam ne en fait moom c' un homme de la CICAP. dire un produit de la tey loolu bu mhm. mhm. mhm. rëcc na waaye yooyu yëpp soññ la rek ba tey waaye yaa ngi woon fu am solo projet yi naam daaneel nga ko waaye ñu jël kooku waaw salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax tur bi ak foo ñuy woowee ñu ngi lay maa ngi lay delloo ziar uh-huh. allo. tur bi waaw foo ñuy woowee tur bi. Ah, man la Burama Kebe. Burama bisimilah Burama. waaw di leen woowee Sicap Liberté mën naa ko woowee. Mhm, bisimilah. naa ko mën naa ko waxee noonu quoi. acca bokk. waaw dama bëggoon bokk rek. ci émission yaa ngi ci biir yaa ngi ci biir monsieur le maire mu ngi lay déglu. waaw jeex na sax. Mhm. bokk euh, juste ma nuyu ko aussi di ko ziar. Mhm, maa ngi lay fay Burama. Mm-hmm. waaw naka naka yi tey mbaa leen ci jàmm. ñu ngi sant la bu baax alhamdulilah. Mm-hmm. waaw xam naa indi benn témoignage rek par rapport ak gars yi li ñuy wax rek. Mm-hmm. xam naa ne moom bu ñuy wax ci monsieur le maire tax xam naa ne fii ba suba duñ ci duñ ko duñu jeexal. allo. allo maa lay dégg bu baax. voilà ma ne bu ñu doon wax si moom fii ba suba duñu jeexal waaye dañuy nangoo tënk rek. waa ah, am na solo. parce que dëgg yàlla xam nga euh, ku am njàmbaarte la. boo xam ne si il est proche des populations. Mhm. nañ mën nañ jàpp ne SICAP 1 ba 6 6 extension. Mhm. lu am suba ba ngoon ku xewle mu taxaw la. ku mhm. am ku feebarit boo ko bu fekkee yow xam nga ku feebar nga nga ko ko lu mu ci mën dina ko def. dëgg yàlla. Euh, loolu nag ku mel ni ku mel nii nag buñ ko amee ci biir SICAP. Mm. am na si tànkamul kenn. yaakaar naa euh, baax na ñu mën ko témoigner ci kanamu Sénégal ñëpp dégg ko. Mhm. waaw di ko di ko encourager rek. xam nga di ko mhm, encourager. Mhm, euh, wax ne le chemin encore long. waaye ñu ngi ci gannaawam. Euh, bu mu xeeb bu mu bu mu bu mu bu mu waaw bu mu wàññi daal bu mu wàññi tànkam. am nañ ne aussi au niveau de la mairie li mu ci mën nañ jàpp ne c'est l'un des ténors au niveau de la mairie. Ah, waaw mairie bi nag mënul def lépp. Mhm. foog ci population yi xam ko. Mhm. Euh, mairie bi dafa am un budget assez limité. Mhm. donc des fois ñu créer des activités pour am des recettes. additionnelles. ci ci kaw recettes yooyu li ñuy jéemee def ay lampe ah, ñëw ñëw ci assainissement bi ñëw ci propreté bi ainsi de suite. mais nañu jàpp ne rek ne euh, loolu sax mooy li ma li ma xaw a wax rek. ci biir mairie bi quand même y a de choses qui ont été réalisées durant son durant le magistère de de Santi Sène Agne mhm. pour lequel moom il est il est le troisième adjoint mhm. waaye troisième adjoint dafa dox tànku tànku dafa doxe tànku maire mhm. xam nga loolu moo am solo maanaam bu ñu la dénkee bu ñu la dénkee yow am na daan donte maire bi la ñu dénk mu gère mu gère mu noon l' autorité mën naa la wax morale de la mairie Eh, moom bu ci nekkee nekk ci tànk maire bi defu ko parce que maire bi moo tax defu ko ndax parce que parti bi mu nekk moo tax mais daf ko def ndax Sicap a tax. Mhm. parce que Sicap la juddoo Sicap la yaroo lu xam Sicap la ko mën a dellool. Mhm. moo tax euh, véritablement euh, boss. Mhm. Euh, ñu ngi lay encouragé daal wax dëgg yàlla. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi lay vraiment ñu ngi lay encouragé. merci beaucoup di la di la ñaanal di la ñaanal aussi. amiin bër. amiin yàlla musal la ci cat. amiin musal la ci seytaane. Euh, li nga sóobu daal ci Sicap Liberté. Mhm. ah yow ak say ndaw. Mhm. ñun ñi ñëpp bokk ci. Mhm. mën ñu mën ko mottali. incha allah te li yëpp solo xam nga mooy lan ku jar a bàyyi xel nga pourquoi parce que am nga une am nga jub nga. wax dëgg yàlla. ah loo am mu néew mu bëri nga bokk ko ak Sicap Liberté xam nga loolu moo ëpp solo. xam nga barki Dembo Ndiaye on parle du des rapports de temps wala temps. mais li ëpp solo ba ëpp solo mooy. Euh, ñoom ni ñuy gérer municipalité bi véritablement ñu ngi leen ci gërëm di leen sant. Mm-hmm. léegi nag le temps de voilà temps temps bu ñu bi nga xam ne ci euh, élection mi ngi ñëw. Mm-hmm. xanaa ñu jàpp ne ku jar a bàyyi xel. jërëjëf dégg nañ yóbbante bi te moom sax dinañ ko ko laaj du ñàkk <laughs> alors moom euh, kii dugg sànq waaye balaa ñuy ñëw ci acte bi mm-hmm. moom. ki ki ki génn mhm. posé na mbirum sécurité naam mhm. xëy na nekkul bu baax seen compétence mais compétence état la waaye tey kaaraange gi ndax yéen itam yéen a ngi def seen jéego yéen a ngi def li ngeen mën ci commune ba waaw euh, ci volet boobu euh, euh, tu as bien fait tu l'as tu as mhm. wax nga ko comme quoi que ne ñu jël mbokk moom rek salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay ziar tur bi maa ngi tudd euh, Papis Diakhaté président du conseil de quartier bu Sicap. ah loolu de firnde la Papis Diakhaté ñu ngi lay nuyu bisimilah. maa ngi leen di fay. Mhm. voilà donc dama doon dugg seen émission bi. parce que mhm. maa ngi déglu débat bi. Mhm. te bu ñu wax sama gox te man mii nekk président bi ma war si apporter ay vraiment ay euh, seede. oui allo. ñu ngi lay dégg bu baax. allo. oui allo allo. waaw ñu ngi lay dégg bu baax. voilà voilà donc xam naa ne pour un problème de réseau. voilà donc dama doon vraiment di remercier le maire. Mm-hmm. boo ko toog noonu Salette parce que euh, dafa bëgg Sicap déjà. Mm-hmm. Mm-hmm. déjà au delà de li muy liggéey. te gox bi si côté social si côté euh, engagement am. parce que instant yii nii moom gëm naa ne amatul benn vie de famille ndax euh, te muy taxaw suñu population Sicap. Mm-hmm. mairie bi boo xoolee dafa nekk benn mairie bu xaw complexe parce que mairie bi je pense que am na ay euh, seize seize parties xam ñoo seqandoo mairie bi. Mm-hmm. ñoo nekk ci conseil municipal bi. Mm-hmm. mais ko gis ndax seen liggéey bu xarañ. doo gis. ñi sikap ñu am na division parce que ñi nekk ci bopp bi dañu ufandoo ñëpp mhm. amuñu ki lañu faral wala ki lañu far mhm. donc loolu moo xam noonu ci programme yooyu moo xam noonu pour dimbali euh, déjà pour jeunes yi mhm. environnement côté social donc vraiment nous on a rien à man dama doon dëkkal li wax ne li wax ñun ñun ñii ne man mi nekk président conseil bi ñu ngi ci ànd ak moom déjà benn volet laal mooy volet juste pour éducation. Mhm. ban <clears throat> ban mairie nga dem Sénégal ñoom ñii nee nañu xale Sicap képp ku bëgg jàng. Mhm. ñëwul Sicap indi sa dossier ñu jël la doo fay jàng pendant un an. Mhm. loolu amul fenn. te mairie bi amul marché benn daggatu marché la ñu yor mooy Sicap Liberté six. li ñu dundee ñoom ñii seen poche la jógee. ak ay ay publicité ay tuuti tuuti nga xam ne kon. ñi nekk ci tey jii nii ci kaw mérité Cheikh Ndiaye nekk troisième adjoint mhm. vraiment ñu ngi gis seen taxawaay mhm. ñu ngi leen encouragé mhm. vraiment ñu xam ne li ñuy def benn liggéey bu noble la liggéey bu noble la te ñu ngi ci encouragé te ànd ak ñoom ci liggéey bi vraiment loolu laa bëggoon ay témoignage bëri trop mais comme lii bi ñëpp bëgg a bien sûr dafay neexal suñu xol. Mhm. parce que nit ñi dëkk bi Sicap. Mhm. ba pare di confirmer. jërëjëf la la maire lu mu wax. jërëjëf président loolu la amul loo xam ne moo la si sànni. Mhm. di leen gërëm di leen sant. tey moom tey moom vraiment kontaan naa trop. jërëjëf merci président voilà loolu loolu loolu kese la laa bëggoon apporté. merci beaucoup euh, di kontaan trop vraiment. jërëjëf jërëjëf. alors dafa doon am solo mairie toog askan wi di la dégg ñuy tontu. parce que ñun lii lañ soxla ci émission bi. Mm-hmm. lii la ngeen def ci gox bi. Mm-hmm. bu ngeen ñëwee toog di wax askan wi di déglu. Mm-hmm. naam bu amee lu manqué. loo xam ne ñu soññ leen ci ñu wax la. mais yaa ngi woon fu am solo mu jëm ci wàllum kaaraange gi. nee naa la ci eh, état moom moom la ñuy wax kaaraange bu ñu koy wax. waaye yéen ci seen wàllu bopp ci commune ba. ndax yéen def nga yéen a ngi ciy def ay jéego. waaw ñu ngi ciy jéem. bi ci njëkk mooy éclairage public bi. ñu ngi ciy jéem lu ñu mën. pour que. waa Seex moo ko waral de. Ah, <laughs> bismillah <laughs> aleykum salaam. waaw sëñ bi Cheikh Ndiaye moo ko waral de bisimilah ñu ngi lay déglu. waaw Cheikh Cheikh Ndiaye moo ko waral moom mooy bu maire. ñu ngi lay déglu bu baax. maa ngi tudd Serigne Saliou Ndiaye. Mhm. di candidat la mairie de Sicap Liberté. Mhm. teel ngaa déclaré sa candidat de. waaw loolu moom munoo dem ci xare ba pare di ko ragal. acca boobu bisimilah. ndem ndem ndem population bi wóolu nañu. Mhm. waaw maa ngi nuyu sëñ Cheikh. di ko jox cëram. jërëjëf ñu ngi lay fay. nag yàlla yàlla dafa def nag moom. Mhm. amul dara yu koy gisee wax dëgg fa neex yàlla. Mhm. waaw moo tax léeg-léeg nag ma dégg yenn affaire yi daf may xaw a métti. Mhm. moom ndax su ma gisee dèjà jeunes yi ñu wax. muy trente jeunes yi nga xam ne ñooy bale. mais loolu taxul ba tey gox bi kat. tey la gën ci ñun. ci loolu su fekkee dafa ne liberté suuf rek moo ëpp suuf. mais xisaab bi yëpp suuf la. Mhm. ndax man gisuma njëriñ. ñuy mhm. bale. Mhm. muy muy génn si trottoir bi. di ko yëgalaat si trottoir bi bale bi di wàddaat si tali bi. su ñu nee di jëm ci wàllu level 4 tali ñi nga xam dañ ko defaraat. mais il a fallu nga posé ko question pour mu mën a wax ni que effectivement mairie de Dakar moo ko defar. centre centre bi nekk Liberté 6 mairie de Dakar moo ko defar. il faut que gars yi a ñu waxtaan mu gën a leer ndax ñun ñëpp bokk la. Mhm. moom nag day sama grand di sama magum taalibe. Mhm. waaye terewul jëm ci kàpp ñu ciy waxtaan. Mhm. Euh, li ñuy wax ci wàllu bourse man personnellement habitant si Cap Liberté boo xam ne dama bénéficié si bourse yi. tey man maa def demande bi pour xam est-ce que effectivement dina ma jox ou pas li ñu ma jox la. waaye damay bëgg tamit ñu xoolaat bourse yi ni ñu koy joxee. parce que dama gis ne waa Guédiawaye pas mal de yeneen habitants yooyu ñëw bénéficié si bourse yooyu mhm. te waa Sicap a bénéficié wu mhm. leneen li mooy que damay ñaan ñun ñëpp di toog waxtaan si mhm. xool Sicap Liberté nan lay amee commissariat parce que ñun dañoo police jëppal dekkale te Sicap sept mille foyers cinquante quatre mille habitants war nañu am suñu commissariat bopp donc leneen li mooy mairie bi financé tout comme ni ma ko déggee ok d' accord mais suñu toll ñoo ngi xool nan la mais bi di financé. Mhm. ñeneen ñi gis seen bopp. Mhm. donc loolu lu war a mën a gaaw la. ok defal leen formation. Mhm. financé jeunes yi financé femmes yi. tey damay def bàyyi xel leen rek. mooy école primaire yi. ñun def nañu ay tournée ci école primaire yi. te fi may wax nii. Mhm. jamono yi ñu toll. Mhm. école primaire yi toile bi ñu bouché. demal école liberté 1. Mhm. dama lay wax ay preuve la demal école liberté 6. école liberté 6 bay. sur douze classes neuf neuf yi mooy fonctionnel. trois yi tëj la. parce que école dafay waaj a daanu classe yi. ok am naa ci ay preuve ak ci ay photo. ak vidéo yoo xam ne mën naa ko defal sama bopp. rëcc na. waaye euh, mi ngi doon wax sécurité. da ah. koy dëxëñaale ak oh. commissariat bi rek. comme voilà sécurité ak commissariat boobu li may njëkk a préciser maa ngi nuyu Serigne Saliou Ndiaye. di mhm. suma di suma rakk di suma Serigne. Mhm. Euh, j'ai c'est un jeune pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'il est très engagé. Mhm. dans sa commune. Euh, di ci dox di ci kii. et may xool wax ndaw ñu toll ni moom nañu roy ci moom. ndax royukaay la ci gox bi. très rapidement. ma koy préciser ne. maanaam poste de police bi nekk jëppal. du poste de jëppal mhm. Derklé euh, jëppal la mhm. Sicap Liberté ñëpp ko bokk ñun ñëpp ko bokk mhm. y a plusieurs communes yu ko bokk maanaam noonu la question boobu moom mu wax l'honorable député Santé Sène Agne daf ko poser le ministre Aly Ngouille Ndiaye à l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale euh, ci vote budget euh, bu daaw bi suma jumul ministre bi tontu ko tegal ko poste ñi soxla poste de police mu ne ko wax ma ci ñi kan laa ciy dindi defal def poste biir Sicap Liberté ñemewul wax. Mhm. parce que zone yooyu nga xamante ne chaque jour nga dégg na rey nañ fa nit. Mhm. def nañ fa nangam def nañ fa nangam. Mhm. yooyu mooy état mooy samp poste. bien sûr de police. du du du du du du commune. dox nañ ci ay jéego wax nañ ci. parce soxla nañ ko. on en a besoin comme il l'a dit. y a des am euh, ay problème insécurité yoo xamante police kese ay insécurité bi kese sax. Euh, occupation anarchique bi am. nga ñëw di dindi nit ki. Mhm. won la résistance. Mhm. police rek moo ko mën a moo ko mën a def. bien ni moom moo yor l' état moo yor la force répressive. Mhm. et j' espère ngeen ci li ngeen war yéen. ñun li ñu war moom. Mhm. def nañ ko mhm. wax nañ ko. léegi nag il est bien que ñu mel ni ñoom. ñu dugg wax ko. Euh, euh, autorités yi xam ne lii. lu SICAP soxla la. kooku moom dañ koy wax. wax na ci wàllum bourse yi. Euh, école primaire yi moom lu ñu ci wax bari naw tënk nga lu bari. mais bourse yi la ñuy àddu rek. comme ñeneen ñu ngi koy joxee. dañuy jóge feneen di ñëw ñu leen koy jox ndax jotul ñu saytuwaat ko wax dëgg am na ñeneen ñuy jógee feneen waaye mais boo joxee ay bourse ba dese mhm. nga ne dootuma joxe mhm. mais c'est-à-dire que pour nag dafa am ay différents niveaux mhm. daf ci am yoo xamante ne écoles yi ñoo ñu koy may ñun ñu war ko mën a mayewaat doomu Pikine doomu Géejawaay sénégalais la waaw bien sûr ñun en tout cas lépp lu ñu mun a bu fekkee ne dañu yor ay bourse mu nar a nax saay noonu parce que amul benn doomu Sicap buy ñëw laajte si. Mhm. te duñ la ko jox. mais bu ñu joxee doomu Sicap. Mhm. waaw HLM. Mhm. biscuiterie yi. ñëw soxla jëppal derk la ñu waay waay waay waay. yoon la ngeen defal ko wala yoon la ñu defal ko am de. bien sûr bien sûr donc loo loo loolu la. Euh, euh, ginnaaw loolu. école primaire bi wax na ci toilette yi. effectivement loolu yëpp nag mi ngi découlé. ci euh, plan de passation yi. xam nga tey bu doon jóg defar bu fekkoon ne dañu war a jóg. yomb na mais mairie dafay jóg defar benn douche. du métti. mais da ngay def. da ngay def da ngay dajale douche yi toilettes yi yàqu yëpp. Mhm. nga allotir ko. Mhm. def ko benn ba léegi nag manne financière boobu. Mhm. day rëy. pour nga exécuter comme métti. loolu moo ñu dal ci rond point place yi. et et de ce côté là. Euh, le école Liberté 6. le directeur. na ko laaj. l'année dernière on a investi presque six cent mille francs pour effectuer les toilettes yi. am na ci yeneen yoo xamante ni. ay association mhm. ni mouvement wam mhm. euh, association on est ensemble mhm. il y a deux ans indi na fi ay partenaires. Mhm. ñu réfectionné toilette école Liberté 1. waa Liberté mhm. am na ci euh, am na ci. Euh, association association yoo xamante ne. Mhm. Euh, kon soññ la ci moom itam. mu dem def yu ni mel. effectivement donc c'est-à-dire que effectivement ni mu defee noonu tournée. ba gis ko moi je l'invite. avec son mouvement. bu ñu ci bu bëggee ñun ñu bokk ci. ñu ñëw en tant que frère ak doomu Sicap ànd ceeg ñoom. il faut qu'il le veuille. ok loolu daal laa am lu may wax ci côté boobu. voilà ndax tey. li ni mel di acte trois de la décentralisation am na ay rëq-rëq de. waaw. Mhm. sonal na leen. waaw sonal nañu. Mhm. Euh, daf may permettre sax ma tontu wàll ci question bi mu wax ne. tali yi. Mhm. ville moo ko defar. centre de santé bi ville moo ko defar. Euh, effectivement yaakaar naa àddu nga ci sax. Euh, mais mais mais ville son territoire c'est les communes. bien sûr ville bu deful ci commune yi fa lay def. suuf sa. benn association lañu ñu négocier ba mu jox ñu ko. maire moo ko dox wox ko ba mu sotti. Mhm. ma leen di gërëm au passage muy Assane Liberté 6. Mhm. munoon suuf tey kenn mayeetu ko. Mhm. ñoom ñoo ñu ko jox. parce que dañ ne woon mairie bu amul ville Sicap amul foncier. ku amul suuf duñ la tabaxal. waa ville de Dakar. kay buy def éclairage public. ville de Dakar moo koy def. mais boo ko doxul boo ñëwul wax ko ne lii mooy sama priorité. lii laa bëgg nga def. ville de du la ko defal. dafay toog di la xaar rek. di mm-hmm. di la déglu. Mm-hmm. donc c' pour le rassurer que ne en loolu la ville jëriñ. Mm-hmm. ñun fii département yi loolu la def ci région yi. ci yeneen euh, communes yi nga xamante ne ñoo nekk à l' intérieur du pays. c' la décentralisation en général noonu la ko structuré. donc euh, allez-y je mairie bi mhm. bàyyiwul askanam benn yoon mi ngi taxaw ci seen jafe-jafe saa bu ko soobee ca la ñu mën mhm. yëpp ak lañu ñu mënul sax ña ngi koy jéem mhm. euh, ngir askan yu mën a sentir seen bopp euh, il est important de vous dire ñun ay doomu Sicap lañu dañu juddoo Sicap yaroo Sicap màggee Sicap jël soxna Sicap suñuy doom juddoo Sicap suñuy waajur dëkk Sicap donc kon ñun lu ñu am fan feneen fan lañ koy yóbbu amuñu feneen fu ñu ko yóbbu. Mhm. lu ñuy uti Sicap lañ koy indi. ok c'est-à-dire que Sicap dafa nekk dafa sax ci suñu xol. Mhm. donc loolu du lu ñuy nattable maanaam. Mhm. du position yi déedéet. du du poste yi du position yi. li ñu amal solo. ñun mission yi ñuy dox biir Sicap la. du leneen ngir doomi Sicap. ñun ci loolu la ñuy loolu la suñu xol di loolu mooy na suuxat suñu xol. waaw loolu daal la am ma lay wax. en tout cas Cheikh Ndiaye. bu nu déggee fii yëpp ñuy woote. Mm-hmm. ndax tey itam tey jotul Euh, euh, est-ce que du duma anticiper loolu sax jot Cheikh Ndiaye sant samp na ndëm pour euh, mairie bi ndax askan wi ñoom ki dugg rek dañ naan Cheikh Ndiaye troisième adjoint bi la ñuy gën a gis que maire bi Cheikh Ndiaye moom lu muy ton ci loolu ndax am nga jour mbëbët ni nga nekkee troisième adjoint nekk ñi nga xam ne moom mooy maire bu commune bi ndax wax ko sa biir wax fa nga juddoo fa nga màggee fa nga defee lépp ndax tey mën nañ xaarandi loolu wala ci équipe nga nekk. waaw de moo je peux mun naa la wax ne. Mhm. incha allahu rabbi. Mhm. buñ ci yàlla yóbboo ñu ànd wér. Mhm. ak jàmm. ñu taxaw ngir laaj mairie Sicap. yow seex Ndiaye man Cheikh waaw boobaa ci ban bannière wala loolu yëpp ay waxtaan lay doon ak doomu Sicap loolu waxtaan wi yegseegul sëñ Saliou Ndiaye mi déclaré wu candidat sax ah, amaana xëy na maak moom ñooy ànd da da da da te amagul dat dafa teel bi <laughs> waaw dafa teel mais comme que état nee na au plus tard la waaw ah comme que nañu préparé wu pour yaa ngi waaj Ah, waaw ñu ngi waaw ñu ngi ci mission yi pour le moment. Mhm. pour le moment xam nga dañu nekk ci eh, eh, équipe. Mhm. donc du ñu nangu dara lu ñu divertir par rapport ak mission yi fi nekk. Mhm. te AFP nga bokk. man AFP laa bokk. ok man maay secrétaire général adjoint. délégation communale Sicap Liberté. donc mission yi nga xamante ni. du ñu nangu ay prétention wala bëgg a doon dara. yàq wala eh, détourné ñu. ci mission yi ñu askan wi sas fi mu nii. loolu daal ci la ñuy xëy. ci la ñuy gont. ci la ñuy fanaan en tout cas euh, li nga xam ne moom moo jëm ci maire bi moom Serigne Saliou moom ba ma ko dalalee fii nee na ab projet euh, su ma juumul bu fasantikoo la am ci ci li nga xam ne moo jëm ci commune bi. Mhm. mën nañ xaarandi li mel ni li mel ci yow. waaw mën nañ ko xaarandi bu yegsee. Mhm. yow dañ ne euh, commune bi boo génnee rek. Cheikh Ndiaye moom boo ko woowee rek day dem fu nekk ndax loolu itam dafa bokk ci li lay motiver jox ñëpp cër cër bi ci askan wi. waaw xam nga xam nga xam nga xam nga sikap mm-hmm. li ma la wax rek moo ci nekk mm-hmm. euh, man dama koy dund ok cest dire euh, li tax ma loolu dafa dafa dafa dafa am aspect bu un peu particulier du lu may euh, kii parce que déjà dama bëri ay mbokk biir Sicap mm -hmm. liberté 1 ba liberté 6 mm-hmm. dama fa am ay parents yu fa dëkk des parents très proches donc ce qui fait booy màgg en tant que xale da ngay traverser commune bi <laughs> dem

laaju mu la ko mhm. te yow nga bugg ko wax mhm. mooy lan waaw euh, man toujours toujours di sant waa Sicap di leen gërëm mhm. gërëm goo xamante ne amul fu mu yem parce que ay nit boo nekk ñoom maanaam cër bi ñu ma jox ñoom respect boobu ak considération ah, ñu bëri firndeel nañ ko fii de euh, surtout des fois sax ci adversaire politique yi respect ak considération boobu dox suñu diggante. Mhm. ci citoyen lambda bi. Mhm. ci mouvement simple bi. Mhm. man loolu dama leen ci sant di leen ci gërëm. di leen ñaan. parce que ñoom esprit SICAP la ñuy dund. xam nga nag dafa am loo xamante ne dafa important. SICAP esprit la. lu ñu bëri xamul. esprit boobu ñuy dund. buñ ko dara yàqal. convivialité boobu ñuy dund. xam nga néew na nga dégg élection jot na. waa SICAP ba ngay tojante bopp. doo ko dégg dañuy rombante caravane mhm. chahuté mhm. ñi dem ñi la dem mhm. bu ñu paree àndaat ci liggéey bi di leen yokkat rek sensibiliser ci bës yi ñuy dem euh, cleaning day ña nga ca woon ñun président lancé na ko mel ni couple de waaw kay man nag dama leen dama leen invité bu ñu ci gis parti hmm. bu ñu ci xool parti bu ñu ci xool ne président wu de de président de la république moo ko lancé avec opposition mhm. syndicat mhm. mouvement citoyen ñëpp nañu ñëw parce que SICAP bu setee ñun la setal ba pare mhm. ñun ñoo fa yeewoo donc kon man leen di sensibiliser. di leen ñaaxaat di leen yokkaat bu ñu gis coloration yi dañ ko jël teg ko fële. Mhm. ba ñu pare suñu cleaning day. Mhm. bu bu bu élection jotee ku ne dellu fa nga nekkoon. comme ni ñu nekkee suñu biir conseil municipal. il faut mhm. que ma gërëm leen sant leen ñoom aussi au passage. conseil municipal bi sànq am na ko koy wax. seize partis. et mouvement citoyen. ñoo fa nekk kenn du xuloo kenn du xeex lépp la ñuy waxtaanee. intercommune bi rek. non lépp intercommune bi. ñi ciy waxtaan ma leen di leen gërëm. di gërëm tamit administration bi may liggéeyal ci commune bi. Mhm. ñu ma jàppale lañu. Mhm. équipe yëpp maa ngi leen di nuyu. Mhm. conseillers municipaux yi tamit. ma leen sant lu leen gërëm di nuyu nag beral nuyoo. su ma nijaay xam naa ne dina kontaan. Euh, suma xarit. sama collaborateur numéro un. l'honorable député sant seen añ. ok en tout cas mbégte la woon tey dalal ki nga xam ne moom moo di Cheikh euh, Ndiaye. nekk ñetteelu adjoint maire bu santi seen añ ci biir émission bi di gox bi. xanaa di leen jox dig daje ba beneen dimanche incha allah ci même waxtu bi sant leen gërëm leen.